voilà coach ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur Light TV lay waaw maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant si tournoi bi ngeen tëgg nii rafet na trop trop trop si trop trop trop trop trop ñaan yàlla rek tournoi bi egg si jàmm salaam rek ñu jël ko incha allah si kàttanu yàlla Euh, coach ngeen joué euh, huitième de finale euh, tey mu nekk seen premier match ngeen ñëwaat ci score bi ba gagné ñi nga xamante ne ñoo nekk ASC Sirat naka nga lan nga yaakaar ni moo la la parce que bu ñu bu ñu mën a 1-0 dañoo Razi dugal dugal premier égalisé dem deuxième mi-temps Razi dugal deuxième bii engagement moo ñu koy match sax engagement moo ñu koy parce que soo xoolee sax équipe bi lu lépp ñëwul parce que soo xoolee benn changement la ñu suñu joueurs yu bëri xam nañu son lasé physiquement mais sant yàlla daal comme yàlla dimbali ba ñu gagné ñu si sant yàlla baax baax baax si kàttanu yàlla incha allah préparation euh, nañ ni euh, démission yi a football a métti sax tool mais suñu entraîné benn une semaine wala naa dina gën a yomb quoi si kàttanu yàlla incha allah waaw damay tàggoo rek tournoi moom ñu ñaan yàlla ñu jël ko rek comme dañoo ñëw pour jël ko yal nañu yàlla yal rek comme daa xooy dañ ko ñàkkoon dañ jël ren rek si kàttan yàlla incha allah incha